Mouhamadul Hafiz Achinqiiti mi nga xam ne mooy seul ouest africain bu jëlee yudu Tidiane ci Ahmada Tidiane radiyallahu anhu Cheikhaani sëtam la jébbal baay boppam nee na baay man dama néew doole man wirdu yu bëri yi xalwa yu bëri yi mënuma ko te dama bëgg a yegg ci yàlla waaw fa inni azadni riyaadatu wal kaddu tàggat ma rek yóbbu ma ci sama borom ma xam li gaa yi xam te du ma sonn directement bàyyi ne ko am nga mbëggeel te dëggu nga ñaar yooyu ku ko am rek yegg ci yàlla dafay yomb ci moom ci moom dafay yomb ci moom mm-hmm. taxool zikar ak tudd yàlla ndax tur du tàggoog borom taxool mm-hmm. zikar ak tudd yàlla cheikhaani moom moo ne bàyyi maqaama bu ñu tudd rek yég nga ko waaye yég nga ci dayoo maxaama ci yàlla foo xam ne jomb na nit sàkku ko sa maqaama dafa nëbbu nëbbu ñëpp ba nëbbu la sax yow mm-hmm. pour wan la rek dayob Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu taala anhu waaye bay li dal yonentu daf koo dal ndax ku nekk ku nekk nga doon da nga koy niru moom daf ñuy waxtaanal ci Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam ibnu Abdullahi mooy domi Abdullahi ak Aminata waaye dana ñuy waxtaanal tamit ci Muhammadu Abdullahi ki nga xam ne mooy jaami yàlla bi ki nga xam ne moom moom mooy yónni yonentu yi daanaka ay ndawam lañ moo leen tëbb moo leen inspiré ñaari aspect yi dafay ñëw ci bàyyi mën nañu waxtaan ci Ibrahima ibnu Abdullahi mën nañu waxtaan ci Ibrahima Abdullahi nga xamne mom jitu na jamono ak barab foofu ngay dege buy wax ne halima al Mustafa la aqla yudriku al ilahu alayhi munzil al kutubi sama intimité ak yenentu bi xel mënu koo wër mënu koo cerner yàlla yàlla julli ci mom amin ya rabbal alamin yi wax nan bama koy bëgg yàlla bindagul mbindeef kon mom bobu lan la won kon boy wax ci dimension boy wax ci bàyyi ci dimension bobu dang ci gëlem gërëm wax ca du yomb wa da'u masunan bil jalali muhajjaba

moom moom loolu rek la tontu. loolu la tontu. sëriñ bi jullit la woon jullit la woon. allahu akbar jullit. jullit ci Cheikh Ibrahim bu ñu la jullit la mooy koo xam ne les trois dimensions de l'islam mooy l'islam jébbalam wér na. imaanam ngëm yàllaam wér na amul dara lu ci sikk. ihsaanam muy la bienfaisance ou le bel agir yegg gum yegg ci yàlla xàmme ko tam feeñ ci jeexitali jëfam mat na sëkk. moo tax du hasard mu bind téere tuddee ko maqaamaatu diin salaas.

Cheikh Ibrahim ku jëriñ mbindeef yàlla yi ndax jëriñ mbindeef yàlla yi weesuwut nga fexe ba jugé leen ci servitude ci jaamu lenen luddul yàlla yobul leen ci ñu wétal yàlla ak jaam xam ne benn buur lañ am moy yàlla ñun ñi ci dess yëpp ay égo lañ ñoo bokk ngàllo gi ni suñu baye oustad Barham Diop dañ waxé lolu révolution la bu maga mag fexe ba bakkan bi libéré wu ci la antise des passions ما لم تجاني بنت اللي بيمشي نيجيريا دفني والنفس تلك هي المراد فان صفر يجري الصفا لسائر العواقب دفر بكن بي لول موي تياكو تي في باي الله بكن بي بو باخي رك لي تي ديس ييب لي ليسانسييل لي تي ديس ييب موي ليسانسييل دا فاي با ما باي رضي الله تعالى عنه داف دي نونو تي ينتو يالله محمد صلى الله عليه وسلم موم لا تودي لو غران دي بروميس بروميس يي جوغي تي ينتو يالله محمد صلى الله عليه وسلم موي لب لو نيوري تي نوبوتو تي ديغنت القران اك سنه dafa ñew dekkal ko jox ko nit ñi yombal ko ndax cheikh ibrahim bo dege muy wax ci olof suñu ben mam sëñ omar fatou jàll dafa wax ne bàyyi amul waxi olof lu mu la wax rek alquran la wala hadith dafa la baña sonal di indil ay texte mhm. mu lay bouré mu wax la olof bi nga xam mhm. bu wax arab nak nga xam ne ki deug deug kep ku namp daab wala nga jang ko mo la ko gëna deg dégg bay bàyyi bay te nim doon nim daan tafsiri alquran ci wolof non la ka daan tafsiri ci arab non la ko doon tafsiré ci ci arab loolu Cheikh Ibrahima dafa mën a jàng. jërëjëf taala wax na benn woo xam ne xam-xam dama koo jàng lool. macha allah ci buntab sant yàlla. mais li doy waar xam-xamam ba bàyyi fan la jàngee fan. Baye jàngut ci kenn ku may waajuram muy El Hadj Abdoulaye Niass. moom rek moo ko jàngal. waaw waaw ci lu wér. jëlee naa ci sama benn jaay bu ñuy wax El Hadj Mouhamad Tuuti Niass ci ñi mag ci Niassène la fi mu nekk nii. mu ne Cheikh maam Cheikh Omar nga xam ne doom la ci Hadj Abdoulaye. Mm-hmm. maam Cheikh Omar Baye ma lu tuddee Cheikh Omarul maam El ma lu tuddee Cheikh Omarul Fuuti. daf daan wax ne xalifa moo ma magee fukki at ma magee bàyyi fukki at. est mu mag na bàyyi. Uh-huh. waaye nee na dars bi ñu mujjee jàng ci El Hadj Abdoulaye Niass ñoom ñoo ko jàngandoor ak bàyyi ci kanam El Hadj Abdoulaye Niass. est-ce que muy darsab lixmiraar ku ne xam ne lixmiraar ni mel. di grammaire supérieure nga xam ne alfiye lañ jël. woyaat ko woyaat ko junne bayti ya nekk ju nekk ñaari junne bayti. Uh-huh. maam El Hadj ba téere bi ñëwee ci gox boobu yegg seegutoon Sénégal yegg seegutoon boor boobu maam El Hadj ne. téere bi de incha allah jànguma ko waaye danaa ko jàngale ci himmay Cheikh Ahmada Tidiane radiyallahu anhu jànguma ko waaye danaa ko jàngale fekk am na naar yoo xam ne ñoo ko daan sottil téere yi nekk awlaad daymaan yi ca Mauritanie gis naa lettre bu mu leen bind ci loxo secrétaire am ba alxaaj Mouhamed Zeynab bu doomam ju baax ja lettre boobu maam laaj daf leen ko yónnee rek weer la ci te génn àdduna maa ngi cay wax waa awlaad daymaan yi si ñi ko daan sottil téere yi ne ko téere yi ñu sottil yi nga yónnee bëri na xaaral bañ fay yi yëpp ba mu jeex nga doog a yónnee yeneen ndax tubaab yi sonal la ñu ak seen impôt xaaral ba téere yi yëpp jeex nga doog a yónnee yeneen naar yooyu la jox lexmiraar copie bi mu ci amoon ne nañ ko sotti ay copie lu tolloo li muy doomam yi àgg ci niveau boobu ci xam-xam hmm. ñu sotti ko mu toog di leen ko jàngal maamalaaj ba leen ko daan jàngal ñu ne léeg-léeg àgg ci masala boo xam ne bu jafe la dafay jug dem jàppi hmm. xaaral ma dem jàpp buy jàpp dañ koy dégg muy wax langue boo xam ne xamuñ ban langue la ñu ko teg la langue syriaque muy suriyaani yi nga xam ne wàllu yii dañ koy dégg euh, Cheikh Abdou Aziz Dabakh borom Ibris mhm. dafay wax ne diwaanul awliyaa moom langue boobu mooy seen langue de travail moom lañuy moom la ñuy waxtaanee bu yenentu bi teewee président séance bi rek ci la wàllu yii di wax arabe mais bu ñu nekkee ñoom neen suriyaani yi la ñu mamalaa loolu lañ koy dégg muy wax bu ñibbisee rek dars bi leer nañ ñu ne ah dem na ci Cheikh Tidiane ba kon maam na téere yi mu jàngut yëpp bëgg gum bëgg Cheikh Tidiane ak jeex gum moom ci la ko yàlla xamale kon dars bi bàyyi mujjee jàng kaw suuf maam Cheikh Omar magam bu ko magee fukki at. Mhm. moo ne maam El Hadj Abdoulaye moo ko jàngal. waaye nag Cheikhaan yi dana la indil lu nekk ci téere dana la indil loolu gis ci benn téere. Cheikhaan yi moo wax loolu. moo waxul loolu. wattaqullaha wa yuallimukumullah. wallaahi mhm. ragalal yàlla yàlla xamal la. Mhm. te moom nag dëgg-dëgg ragal yàlla mooy mooy baaxam. muy le garant des promesses laa doon wax. li ñoree ci nubuwa yëpp jox nañu ko alquran ci jiitu. jàng na ko mokkal ko lool ba ba mel ni alquranam ji moog moom a maase ndax nu mu ko teelee wattu te musu ko fàtte moo ñaanoon ca njël فلتجعل الحفظ كتابك الكريم كرامتي إلى لقائك العظيم شوقي وحبي فيك لا يشفي سوى حلولي وارتحالي فيه نروم أن يسحبنا مدى الدوام بحفظنا له ولو حال المنام قطني به قطني وقد كفاني كتابك الشافي لدى الأحزان سنجل بلنا يو يلا دفل وقت القرآن سأل القرآن جي منك سما كرامة سما ميراكل ننك موكل القرآن والي بنا دي أم كرامة سما ميراكل ننك موكل القرآن موكل بجيجي دايو te duma ko fàtte mu sax ci man ànd ak man ba ba may génn àdduna faatu di daj ak yow ndax bëgg gi ma a bëgg dafay taal ci sama xol safaraay mbëggeel goo xam ne dara mënu koo fay lu may may yéeg ci alxuraan di ci wàcc heure bu ma àggee ci alif laam jàng bi ci mi nel jënati wan naa si rek may yéegaat te loolu mooy saaxibul quran mm. yeneen bi nee na saaxibul quran mooy kan mooy koo xam ne bu jeexalee rek yéegaat di tukki ci biir alxuraan macha allah mu ne doy na ma doy na ma doy na ma sa téere bi nga xam ne mooy saafara sama jàngoro yi jàqare la waaye loolu. Mhm. li lay wax ne lu ñaan rek yàlla may na ko ko bi mu nekkee ci lo dundam bi mujj fanam yi mujj ci dundam ci Angleterre dugg bloc opératoire génn nekk sous anesthésie di nelaw sëtam imam Hassan Cissé nee na waxtu bi mu daan jàng alquran bi mu jotee rek bàyyi mi ngi nelaw mais daf na relève di tari alquran. allahu akbar loolu mooy ngay jàng alquran ba alquran mujj di la jàng. boobu boobu bi ci feebar bi. mi ngi nelaw ñu ngi ko anesthésié mi ngi nelaw. ngi nelaw allahu akbar mi ngi bi heure بجهل وخفية دواما ومثل اليوم في ذاك ليله فهل أبصرت عيناك أحلى معيشة من العبد فهو الحمد لله كله رأيت رسول الله بمجر صلى الله عليه وسلم بتشك ماغي جانغ القرآن un septième guddi un septième bi ma jàngoon ma tari ko bu semaine bi jeexee ma jeexal kaamil bi yëpp mu ne ndax mas mas ngaa gis ku ma gën a neex dund waaye ba septième bi ma daan jàng par jour bi mu jotee rek imaam mu ne mi ngi sous anesthésie di nalaw mais dafa commencé di tari alquran te mi ngi nalaw يس لول موي لي نيانون فتجال الحفظ كتابك الكريم نرو مو ان يصحبنا مدى الدوام بحفظنا له ولو حال المنام دونت ماغي نالو صاح بون ما فك بك بكلي ما تري القران بام ديا كوكو موي مولانا شيخ ابراهيم القران ماني نديكي نا سي موكالكو نديكي نا سي جانغالكو ناخ غناو بايام غيني ادنا 1922 ماغام يبل كو كوسي سي دك بوم خنا فلا توري بايام مي نيكون موي جانغالي القران دي جانغالي آه، دي جانغالي خام خام دي ياري فلا نديكي جوخي ويدو تيجان كون لي جوغي سي يينتي موي القران اك حديث موكو جانغال نيب wax na taalibeem Amar ibnu Malik ne ko sama sëriñ ci zahir mooy alquran ak sunna kenn du ta kenn gënuma koo dégg gisuma ku ma ko gën a dégg sama sëriñ ci baatin mooy Cheikhu Tidiane te du ma tàggoog moom benn waxtu mu ne ko naka la ay di jaaree ci alquran ak sunna ak ci Cheikh Tidiane yiw rek moo mën a jugee ci ñaar ñooñu kon li jógee li waddee ci Cheikh it moo ko sàmm ba jox ñu ko ndax yenentu bi mooy jëmi shariatu Cheikh Ahmad Tidiane yi taalibeem ba di jëmmi xaqiqatu dégg gën a dégg ñaar yëpp ñëpp ba taxoon mu ne xadamaay haataani ala raqabati kulli waliyillaahi min nadul aadama ila nafxi fi suuf sama ñaari tànk yi mi ci loosu wàllu yi yëpp la ko dalee ci aadama ba ba ñuy effet trompette ba di wal bi pour yàlla pencam jaam mhm. muy tànk charia ak xaqiqa moo ko gën a dégg ñëpp Cheikh Ibrahima donn ko ci ñaar yooyu noonu li rusee ci wilaayatu moo ko segg jox ñu ko ndax tariqa yoon la wala jëmee pour nga àgg ca péyëb yàlla ba te bi mu ñëwee nee na tawaytu wa sahaltu tariqa ila alxaqi li kulli muridil wasli lil xaqi bil xaqi lem naa te yombal naa yoon wi jëm ci yàlla ñeel képp koo xam ne bëgg naa yegg ci yàlla ci dëgg barakallah macha allah macha allah leer na yaakaar naa mbokk yi alaaj Pape ñu ngi gën a xam kanay bàyyi radiallahu taala anhu oustaz Modou jërëjëf oustaz Pape Hann yaakaar naa mboolem kuy soppee Maulana Cheikh Ibrahima Niass bëgg nga ci xam dëgg